soxna Momy Kébé di doom ci njugo Kébé ak Cheikh Gadiaga insulteur public bi maanaam saagakat bu mag boobu ñoom ñaar seen diggante tàng na jër d'abord kan mooy soxna moomi kebe comme niñ leen ko waxee woon ci suñu njalbeenu wax Momy kebe doom la ci milliardaire bu mag bi te mu génn àdduna di Ndouko Kébé Momy kebe nag nekk na jigéen bu ràññeeku lool ci réewum Sénégal rawatina ca dëkk bu sell boobee di Touba ndax œuvre social yi nga xamante ni mu ngi koy def jëmale ko ci yoonu murit comme naka baayam ja daan defee moom Ndouko Kébé mu boobee jël na tànki baay ja bu baax a baax ndax dundam gépp da koo jegleel liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasuul ak dëkkam bu sell boobee di Touba mbir mooma nag ñi yàgg a dem Touba duñ ko weddi ndax gis nañ bu baax bernde ya nga xamante ni dina ko fay def waaye nag moomi kebe moom mënul woon mel nenn nu dul nii ndax kin ko tudde mooy soxna moomi Mbàkke mu Serigne Touba te mënoon joxe bernde loolu mu mel ni rek moomi kebe donn na ay jikko ci turandoom jooje mu wute lool ak Cheikh Gadiaga mi nga xamante ni métier mooy wër di saaga nit ñu baax ñi moom Cheikh Gadiaga lan mooy ab liggéeyam dafa ubbi ab site internet tuddee ko Sénégal info point net boobu la site nag moom lay utiliser pour saaga ak di def chantage ñenn ci personnalité yi moom Cheikh Gadiaga naka la koy defee naka lay defee chantage yi nga xamante ni dina ko def ñenn ci personnalité yi saagakat bu mag bi Cheikh day bind ay article yu doy waar ci sitam boobu di Sénégal info point ko ci ñenn ci ay personnalité société yoo xamante ni ñi ngi ci biir réew mi ci noonu nag la lay ni la am naa ci yow ay information yu garaaw a garaaw yu doy waar yoo xamante ni bu ma ko publier di nga yàqu bu ko defee nag waa ji daal di tiit jaaxle ca noonu nag la ko seex di chantage di ko commencé di laaj ay xaalis wala sax mu koy menacé waaye bi yoon mu mel ni seex dalu ci ndax kim ko sëkkal mu di soxna Momy Kébé du ab dof du ab bàyyi ma boo xamante ni dangay ngay ñëw chantage ko rek mu jàll noonu ñoom ñaar Cheikh Gadiaga ginnaaw ba muy jéem a santa soxna moomi Kébé doomu Ndiouga kebe ji moom boolewu ci waxam dafa dem rek déposé ab plainte foofee ca dig ca noonu nag la ko waa division des investigations criminelles daat koy jàpp foofee ca aéroport Blaise Diagne ginnaaw ba mu jógee ab voyage ca biti réew Cheikh Gadiaga nag bu moytuwul dinañ ko placer sous mandat de dépôt ndax nag moom liñ koy toppe mooy yëkkati ay kàddu ñu ñaaw teg ko ci deru jàmbur ak tentative d'extorsion de fonds ak division des données personnelles jëmale ko ci kii di soxna Momi Kébé ci fàttali rek moom Cheikh Gadiaga jàppoon nañ ko ci mbir mu mel noonu ca atum 2014 ginnaaw ba nga xamante ni doon na jéem a chantage waa ministère des finances njëkkee ko ci Amadou Ba ak ki nga xamante ni moo di directeur des impôts et domaines Cheikh Ba ak directeur des douanes Mamour Diallo ancien directeur des douanes Pape Ousmane Gueye ak pap Mayel Diop mi nga xamante ni moo nekkoon directeur des aéroports di Sénégal